mooy xale yi déjà boo déjà boo demee euh, kii université da ngay gis foofu étudiants yi ñoom langue de travail bi sax mun mënuñu si wax. le français. waaw mënuñu sax wax loolu comment est possible loolu comment est possible te du étudiants yi rek da ngay gis sax yenn ci suñu autorités yu be yu yu yu suñu autorités yi depuis depuis deux mille ah, depuis 2000 yoo xam ne ñoom tam wu ñu la langue de travail waa loolu nu muy mën a nekkee ou bien ñu changer langue de travail bi ut beneen ut wolof ou ut je sais pas beneen. les langues nationales beneen beneen si les six langues codifiées les six langues nationale codifiées. Ouais. ou bien ñu jàpp ci français bi euh, di di ko wax wax bu rafet di ko bind bind bu rafet waaw euh, loolu nag. Euh, bu ñu jëloon xale bi à la mm. depuis depuis l'âge de six ans bu mu duggee école mm. ñu permettre ko ñu permettre ko enseignement bi ñu mu am enseignement de sixième mm. de six ans pardon ba dix-huit ans mm-hmm. quels que soient les moyens de tes parents xëy na am na ñoo xam nañu am nañu moyen pour dugal seen doom yi ci ay école privée mais am na ñoo xam amuñu moyen mm-hmm. parce que boo amee dix-huit ans boo amee dix-huit ans mm-hmm. nga mu nekk citoyen boo xam ne tu es euh, xam nga sa ay sa ay droit mais aussi xam nga sa ay devoir devoir yaa ngi koy def. Mhm. xam nga sa ay devoir et devoir bi gën tuuti mooy déjà nga bañ a sànni ay ay ay mbalit ci mbedd bi loolu affaire citoyenneté la. mais fii gis naa Sénégal citoyenneté euh, amu fi importance. Mm. dina la permettre booy manifester nga bañ a lakk euh, li nga xam ne mooy sa njëriñ. maanaam biis biis bi nga xam ne moo lay yóbbu. Mm. wala moyen de transport bi nga xam ne gouvernement bi teg na fi te mu ngi lay yóbbu. mooy aussi nga bañ a violent. Mm. nga xam sa ay sa sa ay droit ak say devoir. mooy donc si ngeen di prone ci campagne bi. man ok man man si citoyenneté égale. d'accord waxuma citoyenneté pour ñan ñi rek de. pour tous si pour ñëpp. ñi am ñi am euh, doole comme ñi amul doole. ok ak aussi euh, ni ma ko waxee. Euh, jigéen ñi jigéen ñu tenir ci compte. Hmm. déjà parité am na daf nañu euh, bataille ba parité am na mais doyul parité bi fi muy am mooy euh, ay assemblée nationale amul sax ci gouvernement bi. instance nest pas ak instance de décision yi. Mmh. mais parité bu mu yem foofu rek na dem ci ci ci ci ci fépp fi nga xam ne dañ fa jël décision. rédaction yi par exemple hmm. est yow gis nga ay euh, jigéen yu bare yuy diriger ay ay euh, ay média wala ay rédaction mu ngi commencé bëri non mais li li ma bëgg a wax c'est facile nga dem def euh, sa kii sa chaîne nu ñu koy waxee YouTube wala yooyu loolu ñëpp mën nañ ko def hmm. même influenceurs yi dañ koy def hmm. non dama ne ñuy jox ay RTS rajo ah, ay ay ay RTS national poste yoo xam ne dañ fay nommé ay RTS voilà ay RTS national non pas seulement poste yi ñu nommé même euh, kii euh, même journaux yi ay soleil ay feneen hmm. ñu koy jox ay jigéen jigéen ñiy liggéey foofu laa wax de wax ma ni dem yi benn jigéen fële rek indi ko hmm. fii non non non jigéen ñiy liggéey foofu ci biir rédaction yi ci biir rédaction yoo xam nga ci dara donc yooyu su ngeen demee assemblée nationale ay mbir la yu ngeen nar a défendre. c'est ça alors su ngeen amee aussi une bonne représentation à l'assemblée lan mooy te surtout li ngeen di njëkk a def lan ngeen xalaat njëkk a def. voilà coalition jàmm ak njëriñ li ñuy xalaat njëkk a def mooy. Mm. Euh, proposer que budget Assemblée nationale ñu koy voter dès le début de la session et non pas attendre la fin de la session ok am na si am na si tamit quest ça devrait changer ça devrait le fait que ñun ñu ngi ñu ngi euh, laaj transparence euh, euh, kii mm. gouvernement bi di ko laaj nit ñi nag commencé si ñun est-ce que yow xam nga assemblée nationale ñaata lay xamoo ko ah xamoo dara si finance assemblée nationale voilà loolu information la boo xam ne citoyen yi dañ ko war a am yow da nga ko war a am dama ko war a am dañ leen di natal budget rek mais ah voilà dañ leen di natal budget mais après li ñu si def est-ce que yow xam nga ko mm. xamoo ko nest voilà am na am na tamit beneen proposition de loi boo xam ne jàmm ak njëriñ proposé ne ko. Hmm. Mhm. mooy euh, proposition de loi boo xam ne euh, dañuy gën a pénaliser ñi nga xam ne dañuy tenir ay propos wala dafay act yoo xam ne dafay euh, méngowul ak sañu constitution. Euh, ci statut si statut wala si rôle chef religieux yi. Hmm. maanaam ñiy saaga chef religieux yi. wala ñi nga xam ne dañuy def loo xam ne dañuy yee fitna si diggante xeet yi wala ou bien si diggante sénégalais yi. Hmm. waaw loolu moom euh, am nañu proposition de. Euh, lan moo leen. ah pourquoi ñu pourquoi ñu def ko. indi ci loolu waaw. lan ah, moo tax ngeen xalaat particulièrement loolu. ah parce que yow gis nga ne. lan moo nekk. yow gis nga ne depuis quelques années. dañuy saaga kii euh, nu mu tudd. chef religieux yi. ni nga koy waxee si olof sax. kilifa diine yi kilifa diine yi kilifa diine yi mu nekk chrétien comme mu nekk euh, musulman ñu leen di wooye sax ay nervi religieux. dëgg la wala du dëgg. loolu moo tax ñu wax ko ba ñoom si seen bopp nee nañ hmm. ñoom sax ñemeetuñu wax. ñoom sax ñemeetuñu wax parce que saa yu ñu waxee dañ leen di harceler di leen saaga ba seen euh, mbokk yi ne leen noppi leen. Hmm. te du ñoom rek. dañuy saaga tam di harceler bépp intellectuel boo xam ne joxe nga sa opinion te nuroowul ak opinion keneen d'accord comprendre nga. Mhm. voilà. alors loolu moo tax alors euh, Dié Maty mhm. ban euh, appréciation nga am ci. Euh,